damaa soxla dem foo xam ne dañ ma faa ëpp expérience man maa teg ci yoon man maa jàngal parce que dama toll ci jàng su ma jàngee nag ba li ma jàng mokk ma dellu ginnaaw nag ñëw toog fii resté li ma jàng moo waral bëgguma nit ñi di gis ni 3STV dafa am 2STV am déedéet li am mooy yaay moo ëmb doomam di ko tette yaay moo ëmb doomam di ko toppatoo yaay moo ëmb doomam di ko jàngal ba keroog muy man mu wasin ko ci jàmm ak salaam bàyyi ko mu doxi soxla yàlla rek laa ki jël seede wa ma shayibna illa bi ma naa alxuraan la lu waaye di wax ci ba ngay dund na nga ko xool ndax boo dee di nga ko waxaat 3STV yi ku yàlla bind nag laa wax ku yàlla bind nga yor ay nopp ki ay tànk bant amoo ko fi ku dul jëmm ju ñàkk fay da ji toog jàkkaarloog ci télévision laay wax lii dañ koy monter dañ koy partager day wër àdduna boo amee ku am bant 3STV boo xam ne yow yaa ngi tëdd di nelaw mu wër na ne sa bant ngi fi ñëwal nga jël si ko te booy ñëw bul ñëw yow kese convoquer la presse sénégalaise gépp ñu wër la nga ñëw jël si li nga fi am 3STV yi ki sama tur la ne man maa ko moom su ma alal la sama ñaar téeméer rek samay ñaari junni sama ñetti junni sama téeméeri junni ak samay millions yi may dajale te liggéey ko mu lew ma laay dajale di jënd par benn di jënd par benn di jënd par benn di jënd par benn ba toll si fii ma toll te tàmbaleeku ma xam lu ma yàlla suturaal nag ba boo fi ñëwee gis palaato yi jolli régie yi jolli climatiseurs yi samp régie yi di dox nga jàpp ne daa ci ginnaaw mooy ñi ma nekkal dañu maa gëm muy ndaw ñi ma yàlla booleel gëm bi ñu ma gëm moo waral bu leen wóoree ne maa war def sax tamanu ma ñoom nga déggale seen mbir defal ma taxaaruñ ci man benn intérêt bu dul ñu bokk lay bokk bàyyi liggéey projet bi dox lañ ci jublu ñu am ko ba ma man cee jariñu ñoom jariñ leen te yàlla rek a tax koo xamul na nga koy def rek nam la dafa tax xujja teraanga koy fay koo xamul na koy def nim la dafa tax eh, ajaratu ma fay sàll daf mu bëgg di ma supporter di ma safoo di ma tiitaroo teral ma ñaari yoon gisuma mu ñaari tabaski tolloo yu bokk yoo xam ne tabaski bu jot dafa yabal nit mu ñëw ba buntu deux s woo ma génn mu rëkk ci enveloppe na ma sa yaay la ko jox nee na nga jënd ci xala ki la defal loolu te xaaru ci yow benn retour kooku amu fayam. le ministre des sports Matar Ba bi mu ñëwee ci inauguration bi barki démb ku ne dégg na li mu wax ñëw ma fi en tant que ministre. parce que bu doon casquette ministre moo ma fi indi duma ma fi ñëw ministre de la communication moo fi ñëw parce que wàll bañ ma jagleel wàllu sport la te lii du sport communication la mais dama fi ñëw parce que Omaro suma xarit la dama fi ñëw parce que Omaro suma nit la Omaro suma doom la Omaro kenn la ci man moo waral ma déplacé wu ñëw dañoo am ay liens yu rafet ay liens yoo xam ne teraanga teraanga moo koy fay te ñun suñu sëriñ Cheikh Béthio Thioune jaamu sëriñ Saliou dafa am lu mu am lu mu jàngal mooy timbax rimbax nit ku ne lam la lebal delloo ko loolu lan ma lebal rek laa leen delloo sargal leen ko wax dëgg yàlla Alaaji Njaay mi nga xam ne moom laa tuddee régie bi lu ma xam ci audiovisuel tey lu ma xam ci wàllu télévision mais ci këram laa ko xamee muy la 2STV te bu lëg lekkee alom ni ko gërëmee coy Omaro bu demee tey ba yor projet bu toll nii boo léegi ñaari at waxul luñ koy xeebee jëful luñ koy xeebee yóbbuwul projet bi yenn ko loo xam ne àttanu ko ba mu a feeñ ci moom wala feeñ ci ñu ko yàlla booleen mu maîtriser ko teg ko ci ligne teg ko ci yoon woo xam ne mën na koo téye nii fukki at te duñ ko ne yaa fi sàcc baa yaa fi leb baa yaa fi triande ndax xam na système bi mu koy doxalee mais xam-xam boobu aw ma ko alaaj njaay ko def ci man bi may dugg ci moom aw ma ko woon bi may dem ci moom xaw ma ko woon kon loolu mu def ci man rafet na ci man su ma demee ba taxawal ma sargal ko moo waral ma jël régie bi tuddee ko ko